asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu santee yàlla sunu boroom ñu ngi julli ci sangu-sang yëpp mu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yëkkati kàdduy nuyoo boo xam ni ëmb na yërmande yàlla ak barkeem di ñaan yàlla sunu boroom yàlla na ko yàlla wàccee ci jotaay bi waaye di jiital ci nuyoo bi nag sunu soppe bu baax bii nga xam ni tey ñi fi teew ñëpp fa tabaarakallaahu maamam moo leen fi indi muy sëriñ Cheikh Mbacké di ko ñaanal yàlla gudd fan waaye itam di ko ñaanal yàlla wér yàlla yokk ko dëgëral tey bu maamam Cheikhul xadim dellu si waatoon du defaraat toogaayam li ko maamam santoon mi ngi ci ndax Cheikhul xadim dafa waxoon ni la tashtari duniya bi uxra yaa fata man baa nuuran bi duja fa sa yëndamu sëriñ Touba dafa wax ni képp ku jël sa lëndëm sa leer jëndee ko lëndëm ne bisa ngi ñëw danga ko réccu li fi maamam bàyyi woon mooy liggéey ak jaamu yàlla loolu tey sëriñ Cheikh Mbacke mu baax mii ci la nekk ñëpp sopp ko ndax mbaaxam ñëpp bëgg ko ndax yiwam waaye ñëpp bëgg ko ngir lan fi maamam tegoon tànkam cheikhul xadim waaye maamam sëriñ Masamba Mbàkke tegoon fa tànkam fa la teg tànkam kon nag loolu yàlla na sax ànd bii nag démb la woon diggante cheikhul xadiim ak Seydil Hadj Malick wëllëre woowu di dox tey ba yàlla boole ñu ak moom muy sunu soppe di sunu xarit ñu teew fi ndax yàlla ak jëmmam waaye ànd ak nag sunu soppe bu baax bii muy Mouhamed Silla ñaanal ko yàlla moom itam yàlla ko yàlla yokk dëgëral lii ngeen nekk na ngeen xam ni sëriñ Touba moom la santaane woon ndax dafa wax ni Touba li abdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyatin kon loolu ko ca nekk nag sa xel war naa dal ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala tànk yi nu yëkkati pëndal ko ba agsi fii yal na yàlla def ko tànk yiw sëriñ Touba dafa waxoon ni guddi goo xam ni dañu koo jagleel yonent bi alayhi salaatu wa mu ne képp ku ca def sa dërëm sa yaram araam na safara kon nag guddi gii wala bëccëg bii ba tey bëccëgu yonent bi la guddi gi guddi yonent bi la ndax ñi fi nekkoon liggéey ko ba mu agsi fii kenn taxoon ñu doon liggéey te mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam Serigne Touba bi mu ñëwee daf ni lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatuhul garraau wa inni ahmadu man ahmadul xadim dama dellu si ngir beesalaat li fi yonent bi alayhi wa salaam bàyyi woon kon nag jotaay bi jotaay yu yiw la ñu ngi am mbégte ci teew fi ñaan yàlla lépp loo xam ne ñaan nañ ko fi yàlla na ko yàlla nangu ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam kaddu yu gàtt yooyu rek la ñu doon jottali bu ñu sañoon mu gën a yaatu waaye mbég bég nanu kontaan nanu yàlla nañ fi teewaat at yu bëree baree baree bëri